toll na ci 14 euh, jàpp euh, quinze ans euh, ba 16 ans ñoom nag ay xale yu jigéen ak xale yu góor ci jour korité bi nag dañoo daal di loué woon appartement rek fële ca cité mixta daal di fay amal ay jëf yu ñaaw yoo nga xamante ni sax vidéo yi ba mu daal di partagé rek dañ cee gis ay nit ñu nga xamante ne ni daanaka rek mu ngi mel ni film porno lañ doon mu nekk ay vidéo yu nga xamante ni nag koy ñaawlu euh, bu baax a baax ba tax na sax euh, xale yooyu noonu euh, bokk na ci benn xale bu góor boo nga xamante ne ni dafa daal di fës rek muy wuyoo ci turu Malick moom Malick moomu lee sax ginnaaw ba nga xamante ni sax gis nañ benn screen bu nga xamante ne ni daal di na fuité tamit ci li nga xamante ni ci screen boobu nag benn xaritam mu ngi waxtaan ak moom di ko wax rek ni que Malick arrêté li ngay def waaye moom nag dafa daal di defaat benn audio rek di ci yàq. yàq di si euh, génnee ay kàddu yu ñaaw. doo am benn problème ndax genre affaire de genre de góor la quoi erreur la woon jeex na jàll na te du moom en plus de yow yaa def vidéo bi tamit yow yaa ko def yow yow yaa defal lu ma def kon jaay gars yi mënoon nañoo gën a laajte avant ñoo nekk fii. man dama gis man gars yi ñoo ma sama sama xam nga man duma ay doxaan moom instant yi nekkuma si. koo mhm. doxaan mu ne la Malick Thiaga la. Mhm. <laughs> xam nga. yaa gën a xam ko doxaan mu la maa ngi cagala tu vois mooy loolu quoi sama sama benn crèche moo ma ko message ñëw naan ma yàlla def lii ma koy jéem a fen naa nga xoolal korité bële la te fekk xoolal gars yi bindeen si korité deux mille vingt xoolal loolu rek waaye rey neen ma rey nañ la baax am na xoolal bay bay naan ma ban moo xaru man man tamit maa ngi koy woo jëlu tamit bu xaruwee tamit àdduna bi dafa neex de man damay continuer. bon maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak ci korite gi ñu jóge maa ngi tudd Mouhamed Faye doon commerçant de captage mais maa ngi liggéey fii ci xaar yàlla. rôle parent ci doomam moom xam nga loolu ci diine sax lañ njëkk a wàcc parent moo war a yar doomam éducation moom bu ñu ko waxee parent la ñuy wax parce que parent mooy éduquer doomam à bas yaay nekk moom surtout yaayam yaayam mooy nekk day xëy wuti lu mu indi ci gi mais yaay ji mooy nekk ak doomam bu mu nekkee xale euh, muy màgg maanaam éducation de base réellement parent moo koy def ci doomam waaw parents yi moom rôle mooy dundal dëkkal def ci éducation ba bu ñu gisee vraiment sa image mooy reflété sa doom moo tax ñu naan doom ja ndey ja moo tax parent mooy éduquer doomam ba bu mu gënee rek moom du ci rus. Bonjour, je me nomme Malang Sané, étudiant et citoyen sénégalais. Par rapport à ce que vous m'avez demandé concernant l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse euh, sénégalaise, d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis outré, déplacé, confus vraiment de, de voir une jeunesse inconsciente à ce point. Les réseaux sociaux qui devraient nous servir de base, outils de recherche, outils d'aller une large recherche sur la connaissance et les études est devenue aujourd'hui virale à cette jeunesse. Une jeunesse qui fait des setups, voire même des vidéos à caractère pornographique sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on devrait déplorer dans notre pays. Le cher Ibrahim Niass disait L'avenir de toute une nation dépend de sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Celle dotée d'un caractère noble et d'ambition élevée. Donc pourquoi aujourd'hui cette jeunesse-là ne peut pas s'inspirer de ces enseignements de nos guides religieux. asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu yéen waa Senclic ñi fi jaar tey doon ñu laaj benn point bu am solo. fi jot a xew fii si Grand Yoff ñu ngi koy métti lu nag ñun waa doomu Grand Yoff yëpp di koy naqarloo ndax vidéo bu may dégg noonu man instant bi jomm naa ko sax seetaan ndax ñu ngi jóge si soxla Ramadan weer bu sell ak mbas mi am si àdduna bi ñu waroon continuer di sellal ma dégg jëf ju ñaaw jooju noonu ay tout tànk def fii suñuy morom di koy métti nag en tant doomu Grand Yoff. waaw moom la wax ni toujours côté manque d'éducation la. mais foofu noonu aussi man damay génnee parents yi tuuti parce que parent li mu mën a def rek mooy yar doomam ci kër ga mais bu xesee gën rek beneen éducation day ñëw te éducation mbett moo gën a garaaw fi mu ne nii xale yi dañuy jàngi internet bi moom dalay fekk ba sa biir kër sa biir ne muy yar sa doom di ci def loo xamante ne yow ci sa bopp doo ko xalaat réseau de police fu ñu waxee ne doomu diw def na dara rek yaay ja day tiit souvent bu amee feebar da koy daane parce que du imaginer ne sama doom am na fitu def lii wala xelam yegg na ci lii da koy bett à chaque fois gis nga ko xale yi dañuy tàggoo soirée mais seen parents yi dañ leen di tere sol lu gàtt da ngay dem ba sa benn kë koppit nga sumeeku dem defi la la neex moo tax foofu noonu moom damaa gis ne mbedd mi ak internet bi surtout moom mooy yàq xale yi léegi si xale yi li ñuy def gisewuñ ko si seen waajur yi ñun ñi ñu yar meluñu woon noonu kon jikko yi nii fan lañ ko jëlee kon loolu noonu du parents yi tey sa doom day defi dara mun na dem toj dëkk bi ba ñëwaat yow doo ci xam dara da lay tàggoo jàng du bañ a bañ a jàngi loo ci maa leen di nuyu yéen waa Senclic waaw. jamono jii nag lépp lu nekk di daw si town bi ñun yëg nañ ko waaw am na loo xamante ne parents dañ si am de responsabilité waaw seen doom nag bu yàqoo si ñoom la quoi parce que ñoom ñoo dul surveiller xale yi ñoom ñoo leen dul bàyyi xel waaw dañuy bàyyi xale yi ñuy def lu leen neex di dem fu leen neex te duñ leen sañaw wax sax sa waaw doom defal nii wala doom defal naa waaw boo yaay nii di loué ay appartement di loué ay oto di def lu leen neex waaw di sàcc seen seen chege parents yi. di dóor ay carte bancaire lu nekk lañuy def booy fu nekk lañuy ñuy loué fu nekk lañuy ñuy jëlee xaalis booy doo xam lan lan lan lan moo leen dal waaw am na am na am na loo xamante ni c'est pas normal quoi jamono jii ñu nekk nit da war a xam ah sa diine xam sa parents yi fu ñu bàyyeekoo ay nit yu baax lañ nga roy si ñoom waaw def ni ñoom loolay yoon. La conclusion que je m'en vais faire à l'affaire, je pense que on doit condamner cette affaire. On doit condamner cette affaire pour servir de leçon et d'exemple à toute autre jeune qui serait motivée de faire de pareilles tentatives. Parce que non seulement c'est une atteinte à l'image publique, mais aussi ça peut influencer d'autres jeunes inconscients de faire de pareilles choses. Donc, euh, nous appelons à la justice de faire son travail afin d'éradiquer ces phénomènes ignobles que nous dénonçons avec la dernière énergie. Merci, chers internautes de Senclic. bon maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ci korite gi ñu jóge maa ngi tudd Mouhamed Faye doon commerçant dëkkee zone de captage mais maa ngi liggéey fii ci Xaar Yàlla. bon maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal. di nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak ci korite gi ñu jóge maa ngi tudd Mouhamed Faye doon commerçant dëkkee zone de captage mais maa ngi liggéey fii ci xaar yàlla rôlu parent ci doomam moom xam nga loolu ci diine sax lañ njëkk a wàcc parent moo war a yar doomam éducation moom bu ñu ko waxee parent la ñuy wax parce que parent mooy éduquer doomam à bas âge yaay nekk ak moom surtout yaayam yaayam mooy nekk ak moom ci kër gi parce que papa ji lu plus souvent day xëy mais yaay ji mooy nekk ak doomam bu mu nekkee xale muy màgg maanaam de base réellement parent moo koy def ci doomam